xoolal booy da ma topp ba fii du gis ngeen yéen a ngi gis maa ngi nii Daaru Salaam ba léegi lépp booy Bamba Faali la booy man arme booy eh ma fi eh man arme laa yor booy saa eh, du ma nag yéen booy booy yem leen booy gars yi ma topp xoolal eh gars ma topp ba Daaru Salaam xool eh maa nii eh nii Daaru sama gars yi laa ñëw dox si booy topp ma fii di ma menacé naan fii nañ dëkk di ma sànni ay xeer saa waay man maa sama arme de naa fayu de lii raam si ñax bi la jëm barki alxuraanul karim lii ndax message d'alerte la quoi man booy du man ak ñoom booy li jëntuwuma du man ak ñoom booy bu ma si jege ndax gaa ma la sum waay bëgg ma laal barki Mawlaana Cheikh Ibrahim damay fayu billahi wallahi wa talaahi maa sama arme naaj sa ku ma si jege saa naa la dóor barki alxuraan gars yi bàyyi ngeen seede quoi non doo ngeen seede ah, kañ ci biir nga doo ngeen seede xalifa kaay kaay ci biir booy Bamba Fall ñoo may saaga nii yéen ay booy Bamba Fall ngeen ah may romb dox sama dox ngeen di ma saaga ah, di ma menacé ah dégguma dégguma nga dégguma saagal bu baax dégguma eh dégguma la de booy Bamba Fall da ngeen de ñoo ma téye léegi si yoon bi téye ma pare di ma saaga ndey du dégg ngeen mairie baa ngi nii maa ngi nii si Blaise Diagne bi si buntu mairie booy téye ma di ma saaga ndey ah dégguma waxal bu baax dégguma eh da booy ay saaga da ngeen booy ak seen i saaga ñuy saaga seen i nii demee de ah. saa xoola naa fi ñëwaat pare leen dégg nga nii la demee ah man naa fi ñëwaat bu yaboo ngeen pare dégg nga gis nga xoola ñu ngi sànni gis nga nañ sànni xeer gis xeer yaa ngi gis nga commencé nañ sànni xeer pare leen ah gis nga ñu ngi daw ngi sànni xeer dana gis yaa ah? si bi gis ngeen de ah xoola booy rek ma topp ba fii du gis ngeen yéen a ngi gis maa ngi nii Darou Salaam ba léegi lépp booy Bamba Fall la booy man arme yor booy eh ma fi eh, man arme yor booy saa waay eh, du ma nag yéen booy. booy yem leen booy gars yi da nga ma topp xoola eh gars ma topp ba Darou Salaam xoola eh. nii eh nii Darou sama gars yi laa booy topp ma fii di ma menacé naan fii nañ dëkk di ma sànni ay xeer. saa waay man maa sama arme de naa fayu de lii raam si ñax bi la jëm barki alxuraanul karim lii ndax message d'alerte la waa man booy du man ak ñoom booy li jëntuwuma leen du man ak ñoom booy bu ma si jege ndax gaa ma la sum waay bëgg ma laal barki Mawlaana Cheikh Ibrahim damay fayu billahi wallahi wa talaahi maa sama arme naaj sa ku ma si jege saa naa la dóor barki alxuraan gars yi bàyyi ngeen seede quoi non doo ngeen seede. waaw ah, ci biir nga doo ngeen seede. Khalifa booy Bamba Fall yi saaga nii yéen ay booy Bamba Fall ngeen ah may romb dox sama dox ngeen di ma saaga di mo menacé ah déggu ma déggu dégguma saagal bu baax dégguma eh dégguma la de booy Bamba Fall da ngeen de ñoo ma téye léegi si yoon bi téye ma pare di ma saaga ndey du dégg ngeen mairie baa ngi nii maa ngi nii si Blaise Diagne bi si buntu mairie booy téye ma di ma saaga ndey ah dégguma waxal bu baax dégguma eh da booy ay saaga da ngeen booy ak seen saaga ñuy saaga seen i nii demee de ah. saa xoola naa fi ñëwaat pare leen dégg nga nii la demee ah man naa fi ñëwaat bu yaboo ngeen pare dégg nga gis nga xoola ñu ngi sànni gis nga commencé nañ sànni xeer gis nga xeer yaa ngi nii du gis nga commencé nañ sànni xeer pare leen ah gis nga ñu ngi daw instant di ma dàq gis nga ñu ngi sànni xeer dana gis yaa su plaise bi gis